bi dafa ñaaw bii rafet ma ne ko bii dafa ñaaw bii rafet ma ne ko eh, bii dafa ñaaw bii rafet bii am mbooloo bii amul mbooloo bii ndëqata bëqata bii silim eh, eh. ñaari soxna ay day wut neen nag moo tax dëgg réew boo ci nekkee ni di am tur seetal tur yoo xam ne duñ la ay ayca mi ngi noonu dégg ngeen euh, kàddu yi nga xamante ne Jamil Cissé yëkkati na ko euh, donc ma am euh, ku ma jël ci ligne bi allo salaamaaleykum allo allo. allo. noo rëy nii ci loon ne mbaa yaa ngi ci jàmm boo ci nekkee ma nekk ci waaw ñu ngi sant bu wér a wér a wér a wér borom vax bu dëgër bi <laughs> kenn du yow yaa mun yaa ko dana ka ajuma ji waa gis nga ñu ngi sant bu baax alhamdulilah ñu tolloo waaw noo ko dundee ay ci nana objet maa ngi maa ngi ci sa objet yi ay waay sa objet yi te nga koo bàyyi noo nii non bu ñu ko bàyyi. te bàyyi sama objet yi bu être humain ñëwee rek ñu def humain bu objet ñëwee ñu humain <laughs> amul xalaat li doo la ko am six rek doxal. Mbadou. maa la ko wax. d' accord ginnaaw ba nga nuyoo euh, mbokku téléspectateurs yi parce que nag euh, ku mel mi ngi lay laaj. Hmm? Mm-hmm. Euh, internet yi ñu ngi lay laaj depuis sànq naan sama gaay yi moom moog mm-hmm. Ousmane ñi ngi fi. ginnaaw mm-hmm. ba nga ba nga ba nga nuyoog mbokku internet yi ba pare. Euh, dégg nga kàddu bi nga xamante ni Cheikh Ahmed na ko jëmee ko ci soxna Aïda Saliou juul ak soxna Aïda Saliou voyante ana lan nga ciy wax. waaw gannaaw ba ñu nuyoo ñëpp rek. Mhm. ñëpp ñëpp ñëpp Mansour Wade moom laay jox nuyu bi mu feddalil ma ko gaa yëpp ah. dëgg fa yàlla ku ci mel ni kooku sant Cissé. Mhm. fenkat la. ah fenkat la soskat la gëmul boppam. tapet la boroom ñaari turi la maanaam muy gën a leer sax góor jigéen la waaw ndax maanaam ñàkk fit doon góor jigéen doon góoru càppataat moo waral yow bi nga fi nekkee jóge sa dëkk ñëw ci xam Sénégal yi gale yi ñoom ñu am faible bari ñu ci faible ñoo xamante ni dañoo yomb xam nga maanaam nit ki boo jàngul xam-xam bu xóot muy ay ay nëx ju ay fiq maanaam am yoo xamante ni da nga koy xam ci biir ara xam xam xam hmm. ku la ku la taxaw wax la xam-xam bu baax nii rek dafa mel ni day këf sa xel parce que ñun liñ xam bariwul hmm. nguur imam Malik dafa am ngir ngir ngir ngir yeneen yeneen yeneen am te yëpp a baax te injil zabur tawreet ba ci alxuraan yëpp ay misaal la yoo xam ne suñu borom da ko booree ñu koy xool di ci teg suñu loxo di ko daj macha baax lool macha allah léegi mm-hmm. nag euh, xam-xam yu bàyyi yooyu day jéem def nit ñi seen bopp yi di fen tapet la tapet a waral bi ko fi bëggee nooq mu génn senegal daw dem ba toog fi muy toog toog di xen ak di créer ak di kaas pour lan fexe ñu leen di bàyyi xel fexe ah. ñuy jéem nekk ci esprit moom mu ngi naan day jaay àndalaa buy mooy garabu awraam boobu te moom ab cuucu la yor yorut lu baax gis naa ko mu jug di teeli teeli nga gis mais nooree eh, foo ko gisee ak noo ko gisee déggoo li la wax xanaa hmm. dalal naa ko plateau nekk ak moom plateau maanaam képp ku naan damay yokkal ak damay defal sa bos jag ba pare lam yor lu tuuti waaw mais plateau loo ci mën a xamee yow it bu bu gudd ak bu rëy ak bu Ah? fenkat la yorut lu baax day fen gëmul boppam sàcc la moo tax mu daw moom bu dee am na fit mën na leneen ak leneen mu ngi ci na ñëw fii mu ñuy xool ñu koy xool gannaaw ba loolu moom démb wax naa la ko ci kooku ñu naan xawma kan charlatan yi hmm. ñoo tas kër yi ñoo daaqa hmm. fen ñëpp ñoo daaqa fen ñëpp li ñuy wax gëmuñ ñu am na ci ñoo xamante ni xanaa xamante ni nanaa dañuy mën mm. xam nga lu ñuy mën mm. seet gis mm. mais am xarit bu mel ni nóorée ni dëgër fit mën fen moo lay dend naana waxal da faj hémorroïde boole ko ci waxal da ngay faj ndoxu siti boole ko ci ba nga bàyyi sa mënit dem mënit sa bopp di fen sa bopp nag léegi loolu lana ko fi jar ah nit ki am ay problème jóge ci problème ñoo ci war nga war ko dimbali moo tax gisoo ci ñoom ñëpp suivral képp ku ci fen balaa dee AVC koy rey wala ñu koy ketal wala mu cancer ba dee parce que xoolu nit yim lekk bëri dundu jàmbur yim arrêté moo bëri dafa am yoo xamante ni rafetul démb wax nga ko palaatoo ma koy ñëwaat mooy man su ma mm. jiite woon réew mi ñoom ñooñu laay njëkk a noq génne leen ci dëkk bi parce que bokk leen ci li ko tas bokk nañ mhm. ci li koy yàq da ngay gis ko jóge kër ndayam ak baayam ñëw parce que xanaa xamoon ni nit bu daax laa li mm. ko sonal day yomb parce que de moom solution rek lay xaar ndeysaan nit bu jaaxlee day dof dootul am xel solution lay xaar ñoom nag ci su ñooñu di ut solution lañuy mm-hmm. ñuy jaaree pour ray leen te ñun sénégalais yi plupart bëgg lu bon ñun duñ taxaw fu ñuy waxee muk yàlla neen ay yonent bi nee na ak di indi suñ budget Sénégal lii nangam sang xam nga fu ñuy waxee mm-hmm. taat bi gudd na taat bi gàtt la kii mooy doxaan kii ñaari sëyee tas neen nangam sangam moom mu mm-hmm. di fen naan bu ma moytuwul jaaykatu dorog la ba muy càggatoo fee day fen doy na du wax ba wax la fii lii fii lu la indi preuve kii nangam kii nangam parce que xam na ne fi mu koy waxee toogul Sénégal di ko wax Mm-hmm. ca biti la toog di ko wax waaye bu toogee fii sañu koo wax xam ne bu toogee fii wax ñu cott koo tax mu daw toog foofu di ko wax di fen ñii jaruñoo bàyyi xel waaye nag sénégalais yi ñenn ñi ci ñu mm. ma ko sañ a wax luñ luñ leen def ñoo ko yayoo parce que ñoom ñoo toog nangu nit di leen fen ñu koy accepté nit di leen nax ñu koy accepté toog di dund ak ñoom lu leen neex ñu koy accepté ñoom moom buy live nga jaar ci da ngay fekk ay trois mille quelque toog di ko seetaan di commenter te ay sénégalais lañ. billaahi. léegi nag benn oustaz Modou Fall wala benn oustaz Maodo toog di jàngale diine nanga ñaari nit a ko fay xool. Hmm. après ñoo ñooy wéññeekuwaat ñun ñuy wax ñu naan nañ wax l'essentiel yéen seetaanu leen l'essentiel ba pare naan nañ wax l'essentiel merde dañoo xamante dëgg. est-ce que kuy la. waaw <laughs> je m'en je m'en bats les couilles mais c'est-à-dire apparence physique bi nga xamante ni moom lay juger soxna Aïda Saliou Thioune mu Cheikh Béthio ak soxna Aïda Saliou euh, loolu naka nga ko gisee parce que euh, ay ñu moroom ci ay classe ñu moroom ci du ñu moroom ci nangam ak nangam dem na sax banaan soxna ay Aïda Saliou Thioune mii dafay dafay wax rek mu mu mu am te soxna ay Aïda Saliou mais dafay dafay gisaane te du ko gis donc euh, apparence yooyu noonu mu doon def ak euh, différencier boobu mu leen doon différencier ana naka nga ko gisee. mooy góor jigéen la caga la kee <laughs> daa xees yàlla may ko star mu gis ko bëgg ko xelam nekk ci moom. mu ne ah. naa naa fa jay neexal fa sama xol gis keneen mu mel neen ku ci nekk am na loo ëppalee sa moroom muy ñoom ñaar ñépp benn soxna Ayda xeesul. Mm, ah soxna Ayda mee ñuulul kii ko ëppalee lii kii ëppalee ko lee. suñ borom noonu lay defee ay mbir ah. ku ci nekk foom la teg. te Sénégal jigéen ñëpp rafet ku ci ñuulul da mm. xees. te ñëpp rafet yi sunu woykat bu mag bi woy na ko. billaahi. yaa ngi déglu. maanaam moom ci jëmi bokk chaque jour day fexe di xool benn affaire bu muy jaxase. dante mm-hmm. ko fen ko Sénégalais yi ñëpp daw xooli ko. ne dañ koy déglu. maanaam bëgg a jël loolu def ko vérité te du dëkk moom ci jëmmi boppam xamul ci boppam dara xamul ki baax xamul ki bon gis nga ëllëg ëllëg yàlla suñu borom la mhm. suñu borom mooy jugé nanaa xawma la xamoo ma li nekk mhm. sa biir dëgg dëgg dëgg naa la di won mbaax bëccëg suba ngoon tàkkusaan chaque instant chaque mhm. tiers sama intérieur damay fen du dëgg kon ki baax ak kiy jub ak kiy wax muy am ak kiy créé affaire bi réalise loolu subhanahu wa mais bu mbindeef bu ci mun dara pour moom moom moom de un bu wax dëgg ak maanaam boroom xam-xam dëgg du ñaaw te moom siise dafa ñaaw ba ñëm yu tooy du gat borom xam-xam dëgg du ñaaw du ñaaw yàlla du yebal ku ñaaw te moom daa ñaaw ko óom na réglé ok léegi ñu ñu ñu wax ci Oumeg Boss seetaan nga seen vidéo bi. yow bàyyil mu ñooñu ñu mel ni Tito. ah bàyyil mu ñooñu di fo. mais mais Oumeg boos Oumeg boos wax nañ ba jooy de wax nañ ba jooy wax dëgg yàlla. man sax dama leen a yërëm man mi ay ay temps plateau da ngeen ko dul dégg damay wax ba doxoon te du ngeen ko dégg naan ma Oumeg Boss yow bàyyil ma ñooñu. mais mais Ousmane. Ousmane faaw nga sànni ci sa grain de sel parce que parce que boss nee na moom bu doon utiliser ummi ba léegi utiliser na ko bu yàgg et tout bu doon utiliser utiliser soxor weesuwul hmm. soxor weesuwul nga am sa soxna takk ko mu am handicap nit ñi dajale xaalis ne pour moom mat na pour mu fay faju ji bu dee dëgg la ci yow nga bàyyi ko mu faju bul xaar yow naan da am parce que doo ko bàyyi moom kese. waa xëy na koo bëgg a gunge Ousmane. xëy na koo bëgg a léegi maanaam Europe du Europe du n'importe moo fay dem wala n'importe où maanaam dafa am noo fay demee. ah moom soxna si utal nañ ko nu mu fa demee ba mu ba mu baax. waaw ba yànj bàyyi ko mu dem. tàmbale ay fajom yow nga topp say procédure bu suñ borom dogalee nga jot li nga war a jot di nga ko fekkee. mais ay dama koy téye damay xaar ba mu noppi man ma doog cee dem ñu àndandoo parce que wóoluwuma sa jàppar la kenn waxula la ko nga wóor kon yow bi nga demee ba koy takk amoo ci moom confiance. jarul na hmm. koy takk. non xëy na xëy na tamit mën na ko wóolu mais mën na bañ a wóolu boppam quand même parce que kenn ku ci nekk yaa xam sa wóolu boppam góor eh, góor rek la may nga takk ba ñeent soxna boo wóolul sa bopp bu ummi demee bu fekkee. da ngaa gis demee demal takk yàgg ak ñàkk a ci yam gis naa fi ku takk ay ñett soxna ci même pas deux ans. mu ngi nii waxaam ci immeuble yu rose yi la dëkk sama xarit la amadu Ba mun naa ko tudd. Amadou Ba man Ba waxuma la ministre. Ah. ma fi woon ki jël ndaare waxuma la ko. ok waaw waaw nan nan rek la. waaw mais mais mais nooree nii. waaw nañ waxante dëgg xam nga góor gu ci nekk am nga droit ne man sama jabar buy dem dama koy gunge. parce que bëgg naa bu bu buy faju ma ànd ak moom ah euh, épaulé ko ak yeneen ak yeneen te aussi ñoom ñaar toll nañu foo xamante ni xëy na euh, mi waratul dem fenn te du ànd ak boos boos pareillement parce que fu ñu gisee kenn ki dañu fay gis ka ca des euh, la preuve challenge bi nga xamante ni doon nañ ko def ci ci ci indo yi bi mu génnee ñëpp yow mii sax bokk nga ci ñu yuuxu quand même. ma. gisoo challenge bi ñu doon def indo ba nga toog fii naan euh, challenge boobu xawma ma lan ak lan di di di ci sànni sa grand desal. boo ma dugal ah. barke d'accord <laughs> léegi man man dama jàpp ni xëy na ñoom ñaar mën nañoo ànd lool lool lool du problème. Euh, te te sénégalais yi leen di jàppale aussi. Mhm. waaw. mais dama ne ko jigéen ci boppam pare na ba cuur mhm. ko daf ko war a bàyyi mu dem daf ko waroon bàyyi mu dem ok nga ko ba mu dem fa ji mais jigéen ci ko lantartan ñaan kenn dem mhm. Mhm. yaa ngi ko am ok waaye ci boo ko dem ma lay wax ci fen comme man ko ma jaar ko ci moom ñu nekkee ci yaa ko toogal ok secteur bi dafa am handicap comme noonu par exemple bu ñu defee ay jéego ñun ñaar leen moom mais jëkkër ji pour intervenir jëkkër ji dafa dem faju ok bi mu demee faju yàlla ay temps après moom daara après quatre ans ko doon oh noo rëy réseau mi ngi daw waaw après maanaam ma ne ma ne après quatre ans. Mm-hmm. loxo kooku fekki affaire yi gis nga lan la affaire bi sa xel la yéen yow defoo ci sa dërëm. Mm-hmm. ana lu mu ci def daa wóor daa daa wóor waxuma ñaan mais ku nekk de ko jàppale ñii seen biir franc. Mm-hmm. yow xoolal li nga xamante ne xabaar na fi sax rafetul. ku nekk di ko di ko di ko jébaane di wax li nga koy jox kii di wax nang kii na nangam sàngam bañ naan ay dañ koy porter plainte. léegi bu fekkoon bàyyi na soxna si ne mu dem demul ci jàmm ba tàmbalee faju te coow du jib kon fu mu egsi yaa ko fa egsi boore ko waaw mun nga noppi teg sa dayam mais mais mais ummi aussi wax na ci sànn na ci Grand de Salam wax na ni. Euh, ummi ummi par force day wax ndax kooku koy pompé li muy wax. ah. mais nooree nit ñi dañoo wax bay jooy. waaye duñ puuru. waaw ma wax bay jooy. <laughs> donc. Euh, donc gis nga gis nga témoignage yi nga xamante ni euh, Mbaye Dieye Faye def na ko ci ki nga xamante ni moom mooy euh, relation waal yi ak ki nga xamante ni moom mooy Sidi Diop ana naka nga gisee témoignage yooyu. waaw bettuma. ma moom Mbaye Dieye Faye defkatu lu rafet la. billaahi waxkatu lu rafet la. Mm-hmm. jëfkatu lu rafet la sëñ sëñ Birame Dieng. Awa Diagne. Jaxaari mm-hmm. Baye moom lu rafet rek la xam. waaw lu rafet rek lay def lu rafet rek lay wax. Mhm. balaa nga xam heure bii nii tey la ajjuma mhm. nga doxantu ba faas seen kër yaa ngi ko fekk jóge na sa kër teg see buntu faas ku nekk di romb bu amee mille joxe bu amee deux mille joxe jarbaat yi di ñëw sët yi di ñëw muy dadale ñëpp mhm. di leen teg ci kot maanaam gis nga ndaje Sidy Diop Wally Seck ku ci wax leneen lu dul lu baax baa doola nga doo nit ku baax adduna ah. la neex kum neexul rek amoo xol Mm-hmm. kum neexul baaxoo kum mm-hmm. neexul hypocrite nga kum neexul seytaane nga mm-hmm. gis nga kuñ fi dégg rajo muy tey benn délégué amuro nangam sangam dañuy wax nga xamante ni ñii ñu ngi showbiz ba léegi xam nga ñuy showbizé mooy ñu ñëpp jub neen lu mu la wax ndigal jib na fu mu ne nii biñ koy njëkk dékk micro amuro lu mu wax balaa maa wax lenn dama naan jërëjëfati Matar Diop suba teel ne loolu lay wax xam nga lu tax mooy fa mu nekk tey seen kilifa di Wally Ballago Seck moom moo mhm. ni wii Sidi Diop moo tax ñoom ñëpp ne mbadaw wii Sidi Diop mhm. dineen ci wax ba xotteek dinañ ci jëf luñ ci war jëf waaye du tee fuñ taxaw ak lu ñuy def seeni biir wax xam nga ni ñoom Wally Seck la ñuy promouvoir ku ci wax Wally Seck nga yëkkat ca kaw ba pare woote sa nit les farmarin yëpp nañ dem mais kenn du mariage mhm. kon ba loogu ñooñ liñ nekk ñoom ñu ngi ci ñu ngi soo bii teewul nag li nga xamante ni diggante Sidy Diop ak Wally li ci am di mbekk mbégte sutura tawfeex teraanga ñëpp la ci seen àdduna neex mhm. waaw lii moom waaw tawfeex doy na waar jërëjëf waaw merci beaucoup euh, am nañ mbégte bu baax a baax. xam nga xam nga nag yow yaay yow yaay réew mi tubaarkàlla. tubaarkàlla macha allah sama xaalix yi nag sama bu moroom. donc jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci kàddu yi am na solo. laka sharaftu jërëjëf. Mhm. waa merci. jërëjëf Euh, mu ngi noonu Ousmane Noreyni la woon euh, ku ko xam xam ko kër gi xam ko Télé Sénégal tubaarkàlla mu nekk chroniqueur bu kenn dootul présenté chroniqueur bu mag bi artiste comédien bu mag bi macha allah donc ñu ngi koy jaajëfal man nag.